reconnaissance bo xamné nit ñi def nañ ko ci ñom ba nominer leen mm. voté leen Sénégal kenn dàpp leen voté mm-hmm. pour sen artiste pour jàppale té te loolu mooy am solo et je vous félicite les mélomanes de la musique sénégalaise parce que joué ngeen ben rôle bu am importance ci lii mm-hmm. joué ngeen man dama dama dem ba ci biir la yëpp dama ko doon poser ay questions bi ko wax mm. jox leen ma est-ce que man la ko nit ñi jàppalee fii parce que dama ko soxla di xam mm-hmm mais gàcce ngalaama def nañ ni li ñu waroon a def jàppale nañ leen ma leen di ñaax nag pour que képp koo xam ne nañ ko ci dara ngeen gën ko jàppale waaw ndax dompat ci sa doom mm-hmm. je pense que c'est très important yàlla na la ji yàlla na la ji euh, la visibilité maintenant elle est beaucoup plus grande comme ça dañ lay xaar donc euh, defoo erreur ça, mais tu n'as pas toi à l'erreur mm-hmm. c'est ça

ngay jàppale sa yaay ngay taxawoo sa yaay daal c'est très bien c'est très bien donc je te félicite ma Vivi à moi mais mais mais mais contentement hein. parce que ki nga xam ne moom moo waral lii muy Viviane dafa mbapat et c'est important euh, jàll ci ginnaaw Youssou Ndour ak Super Étoile di aaw ba bënn ba bigëb ko nag jot waaw Youssou ne ko jot na waaw premier morceau album bi mu njëkk def man ak moom ñoo def featuring muy ayoo nen te ba léegi muy law donc boo tàggatee euh, sa ba mu baree di daan mm-hmm. fiesta nga yàq heure boobu buñ la taajaloon reer sax mm-hmm. mën nga koo bañ a doo xiif te Viviane la boo xam ne li muy def mën na ko mm-hmm. parce que jàngal na ko ba mu mokk seul le travail paye dañu wax daal di ne no tañu il vingt dëgg la et donc yàlla na ko jik parce Euh, bu trace defee lu mel noonu def ko ca Kigali ca Rwanda ndaanaanu musique yëpp taxaw muy jigéen ñi di góor ñi Davido jël bu góor ñi ñu ne bu jigéen ñi Sénégal la jëm kan moo ko fay yóbbu ñu ne Viviane donc loolu fierté la pour ñëpp mais moom mooy li Youssou wax sànq ne dafa am mbégte déjà moom mooy euh, Sénégalais yi

Euh, fa mu démarré muy keppaar Youssou Ndour ak Super Étoile tamit euh, ka mu daan seen bi gëpp ko jàppale ko muy buuba yaa ngi dégg euh, moom tamit dañ koy félicité parce que ca commencement ba la ba tey mu yegg si fii nee na nee naa ko nag mooy li ko Youssou wax ne ko lii du dara li ci kanam moom moo ëppati mais nag sas la lu ndaanaan lu waykat yu jigéen yëpp di xëccoo ñu ne yow lañ koy jox dañ la sas ci ginnaaw miroir bi nga koy xoolee seetu bi mais ci kanam nga jëm léegi nag il faut mu xam ni mi ngi ci beneen level romb na yenn étape yi mi ngi ci beneen level nag liggéey rek ak pat mm. sans bruit rek moom moo koy joxe. parce que carrière professionnelle euh, carrière internationale ci musique dafa metti dafa metti boo koy def uh, day mel da ngay mel ndongo daara ngay jar sa réew doo toog doo ko jar ca uh, tubaab ca parce que xamuñu la da ngay mel ni kuy jàngaat mais musique sénégalaise mën na gën a jëm ci kanam bi ah, donc il faut ñu xam ko loolu maîtriser instruments yi maîtriser way yi xam ni nag métier bu am maanaa la ah métier bu am maanaa la parce que da ngay wàcc ci réew nekk musicien xamuloo fa kenn mm. dem ci benn club daje fa ay musicien bu mel ni xamante ngeen dix ans mm. ba guddi googu mën ngeen ànd ba fajar mm. donc loolu musique moo ko mën adduna ne dañ ko ah. ma gisee Viviane moo

dafa empat baat bu super étoile yu suñu la super étoile école la académie la et jërëjëf moom bi mu xamee qui école la ñëw hmm. et dafa am li jaasa favori mu fa war a jële hmm. moom mooy lan mooy jàng métier bi ba mu mokk hmm. baatam jox ko li muy yàgg moom moo waral bi mais dox na ci baatu

Mm-hmm. tey li tax ñu lay ñaanal moom mooy ba léegi wàccoo gaal bi te mm-hmm. yàlla boo ko wàccoo. Mm-hmm. parce que jaar ci école yu su nekk ak su fekk. ci saa si ñu ne Youssou envoyé le message. Youssou envoyé le na deuxième bi nga lay. dégg nga loolu. donc bi ma jugee. waaw ah, yu nekk ci ci ah. biir. ma ne ko Mbacke. maanaam man Sénégal rek laay xalaat mu ne ma noonu mais doo bañ a. waaw bi. ay punkal ñoo ci nekk. ma ko sama xel mbàkk mu ne ma ne punkal baa ngi nga toog. waaw xam nga lu tax. <laughs> Euh, ku jaar am wéeruwaay da ngay am référence. te ku jaar fii. Hmm. Euh, ngant rek ngay mën a doon. parce que fitu góor ngay am. Hmm. te liggéeykat ngay doon. moo tax tey bettuma bi ma ne Viviane. Mm-hmm. Euh, dama kontaan et puis xalaat leen. Mm-hmm. parce que

dara jomb waru koo jomb. encore une fois. il faut ma gërëm kenn. Mm-hmm. bi. Mm-hmm. parce que buuba. Mm-hmm. lépp li nga xam ni ci carrière Viviane. moo ko commencé. ndeysaan wanale ko lu bëri. wan ko bi ci musique bi. ba pare taxaw ko encadré ko 360. comme li américain naan 360. la wan ko bi. arrangement de tout du donc c'est normal la famille c'est la famille mhm. mhm.